عليه داودا ومن أبى متردا ذا عثر وندم هو صفة من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أبى متردا ذا عثر وندم وكل شخص الحدا في ولم يجاهد بتوبة لقردا من ربه المنتقم هو الذي من يتدى بأدينا لودا ويحتوي الفوز خدا ذا إثمة من نقم وهو كتاب مبين جاء بين المؤمنين بإذن رب العالمين هدى لأهل الأقوام وهو الذي من أدبر وما تدبر حصى رب الورى أدعوك تنزل ومن وهو الذي من ثبت في ولم يلتفت مل يكن فدا عند شكر الأكرم وهو الذي من اكتوى بانتوى ما خنقوى لا يلاقي كل ذوي الأذى بالكرم أحمد ربي على كتابه الذي على الكتاب بالنزلة دك الكلم وبالفم أشكر ربي العظيم على كتاب الحكيم وفزت في ابن علوم تفئ موسى يتلفم الكتاب ربي الكتاب بالنت ذلك الكتاب وزدت عن عداب وجانبا لتسخم هو خليل وحبيب للمغني لعن تبيب يحبني لمي يدلو بخير لقمي يا غير ذكر الدلاء من خير رب أنزلا ليتقد نزلا من في المقا والقدم يا غير ذكر قبلا ممن ذبا إيابنا لخلد نرغنا ذا عمل وقدم أنت رفيقي للجنان القلب يثور للمكان ولتطيب الجنان يا خير ذكر مكم يا خير ذكر نترى بفم ذاكر تلا فرج ويمن قلا وليك وحكم يا خير منسيل يري ما غمذا تدبري ربي يصفي فكري بك بخير التوامي يا خير ذكر قد جمع خير العلوم وقما للهداية ومنا من أذات وعمي أنت ذبيلي والعليل لقدماء المغير بخدمة الماي رئيس مكيسي بمعني يا غير ذير القطمة مضى قلبي فما هب لي كوري مبليا بالمزيل مفاهمي بكذا علمت مالك كوني نور ساعة وذني ذابنا بنازك بمن دلاه فمير ويقود للنبي في أبد بنقبي سلام المقربي باللت عن والمقرم لينقاد من بن لذير تفومنا كتاب عزيز ذاب بدون يدوم عنا يباسرني واق أناجيه وداه بذكر حكيم جاه سعيدا نوى الإنس والجن إلى ملوك يدي خات وجاهت مدائي وأقلامي وقد كان لي منا يقول حليمي إلى كالكلي فيدا برم له سوى المعنى شعوري وأعواني غدا الخير طاعت لمن بي توالي في هذا دم بلا قلوة ولا وأبقى كما أغنى هدية تردي دت الأجر والريدة إلينا كما خدي يبل أمر والمانا وعيته هلوما في عاد باللفظ ولي قادر بخير رفيت عن الأذنى نبات قبول رؤيات وذيت له عبد خديما لذي العذنى بدعي أن الله على راب غيره وأن رسول الله هباق الورى وذنا بدعي أن الله على راب غيره وأنا رسول الله نفاق وراءنا كذبت وإني ذاكر الذي واني وعني محمد أن الله إذ وعنا جزاك يا قل ابن رحم مولاك خيرا للجزاء ومنات دارك أولاك جزاك يا قل إبراهيم مولاك خيرا للجزاء ومنات دارك أولاك فاعلم بأن إن بذور الدلع أبدا وذاك كريم كفي دنيا وأخراك فدوم على ذيرك والإغلاظ متئدا في ذير والجار كي تنمو مزاياك سلام كلينيو aleykum ci santaay ji Sëriñ Saalihu Mbàkke kite ndaw ñi tal baadi fa sukuran jazilan ya rajaa'i wa sayxaana borom jannatul ma'wa nasay leedi yoo kaadi ginaaw loolu tey jii nag danoo xëy di yeesalaat sunu ku sopp doy loo sëriñ bee nu tànnaati damay jéem di barkeelu ni xam naa ni wax dafay mel nu ki yuróot géej yurusu ko di tànqaati xarit yow mi di bu dongaam bégal ndax te am nga ndam te jaabal ni du ko jàmbaar bee la tànnaati na yoon wi nga teg gaañi ku àndal du lambatu dafay mbir mu leen moo ni Bàmba ko rëddaati. ñoo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 yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di jaarale ndokkeel googu ci biir weeru koor wi nga xam ni moon dajale ci turu bis bii ci turu bis bii nga xam ni aji wooteem mi ngi koy woote ci juru al badar muy loo xam ne bu yemoon ci loolu rek jox na ko dara jàmm noppi mu wëlbatiku di sunu mbokk ci nommeel bëgg-bëgg di sunu mbokk ci pas-pas bi muy iraada rek di suñu mbokk ci ak bi te mooy iraada ba tey di suñu mbokk ci ak womatu te mooy iraada ba tey rek benn la Cheikh Mouhamad Maane mi nga xam ni mm, ñun ñëpp ràññi nañ ko ci biir ëttub sëriñ bi xam googu ñu xam nag ak mm, yàgg yàgg ak moom ak bokk gum bokk moom sëriñ bi moo tax ngir yi demee nii nga xam ne sax daawoon ci daanaka ba ràññu ko woon ci ay bëri ay bëri bu teewukaay yu baree bari daanaka boo xoolee nag bu fekkee am na ñuy wàññi la ñu ànd kook suñu mbokki murit yi nga xam ne ñuy suñu mbokki ci lépp ci ndey ak ci baay yi nga xam ne moo leen ko moo leen bokk mu Cheikh Salim daal da wax ne yéen maay seen ndey maay seen baay moo tax mu dugg ci bokku ndey ak baay kon day doomi ndey lan day doomi baay lan kon saa yoo xam ne am na lu mel nii bis bu mel nii ñépp war nañoo takk soo ak lu mu sori sori rek dem fas yéenaa teew yéen a ji nag. دنج كو ديال راجل ينتبه عليه الصلاه والسلام وخا ني النية ابلغ من العمل يني مو غن جرت جف كون بو يعني نيي نكون تيو نا صح كون دوتي موم رافت نيوخ غام ام تشنا دا دا دوي سك كون ورنا وني يعني شنو تيواي بيك لو نكو لول كون بو يكتي ا كادو رك ba agal kàddoom googu yee mënoon nañ koo weccee muy suñu kàddoom waaye nag boo gisee lu mel noonu bokk bokk ay xalaat ak bokk fu ñu jëm moo tax kàddu gi mën a doon benn. yow nag moom yaa ne ca bopp ba waaye day am ñoo xam ñoo nekk sa ginnaaw ñoo xam ñoo lay àggale say mébét kon nag ni ko suñu mbuur waxee rek eh, bis bi yàlla nga ko yàgg def te bu ñëw bu ne rek yàlla na fa wax waaw saa bu ñëwee daal yàlla na bu ñëw ren yàlla na gàccaal déwén. waaw ci barkeb sëñ Saliou ñu ngi santaan nag mbokk doong yëpp ndax gaa yi fi ne ñëpp suba ñi dana war a jàngale ji alxuraan gone yi doon yëkkati xasidaat ñoom it dana war a jàng dana war a xëy jàng waaye bisub sëñ Mouhamed day bisub suñ ñëpp ndax tey jii it ku amoon sa bisit moom it nii la la koy taxawoo fexe ba sa bis jag kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Saliou lépp daal la taw fexe Ngabou Média yow ñu ngi lay sant sa taxawaay ci bis yi nga xam ni aju na ci daara Ngabou sa taxawaay ci bis yi nga xam ne aju na ci daara ji saa su ne ñu ngi gis yaa ngi def euh, nafile daara ji direct nit ñi fu ne lan may woowee di ko wax wax dëgg loolu du du xeebu lu baax la ndax day feeñal liggéeyub sëñ Saaliw bi gore ndaw yi nga xam ay tuut tànk lan daanaka seen xel moo na nekk ci leneen ñu taxaw di mën a tari ñaari isib ak nisif nit ñëpp di ko gis loolu kat jàpp naa ni waajur bu ko gis di nga am xebamteef ngir yóbbu sa doom ci daara ji ngir mu jàngi ngir mu man loolu moroma ma man kon nag loolu ngay jàlle lu am solo la ñu ngi ñaan sa site bi yàlla dem ba doon ay télé télé télé ci barkeb Sëriñ Saliou ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ci nuyu bu gën a jotoo di leen sant di am mbégte ci yéen mbégte moo xam ne am na tàmbali waaye amul yemukaay di sant yàlla bu baax a baax ci bis bi mu ñu taw fii xéere ba ñu mun toog di ko sante te mu nekk bis bi nga xam ne moo waral tey lépp ndaxte kilifa gu baax nettali na ne ma badar de guddi la dajaloon suñu borom da cee def xar baaxam leeral guddi gi ba mu gën reel bëccëg kon nag ñoo ngi sant yàlla ci dàkk gi ñu dàkk mbir moomu ba yàlla toofeexee lañu ko ndax ku ne xam ne ne ñun bisu suba daal lañu jëm mënoon pour def ko moom lañu yëgaloon suñu Abdul Latif ibnu Cheikh Muhammadul Muqtada ibnu Cheikh Ahmadu Bamba Xaadim Rasul yëla yëgaloon ko tamit suñu jëwriñ ju tedd ju baax ji di cheikh saalihu mbakke ibnu cheikh hamdi ibnu sëñ maamun si muur maamun mu daaru salaam ñu ngi mu ibnu cheikh borom gaawaan am cheikh anta waaye yéel ko tamit suñu kilifa bu baax kooku di sëñ fàllu juuf yégaloon ko te defoon ko année woon ko tamit yéga defoon ko tamit yëgaloon ko it eh, borom dëkk bi di chef de bi sëriñ Mbacke ndax kat mbir boo koy def danga koy jaar ci bunt moo waral ñu defoon ko waaye annonce yi nag yàlla daa dogal bi ma déggante moom téléphone mu ne déggu ko waaye bi ma ko wooyee moom sant na ci lool nee na tamit ñoo ko fekkoon ci naafi la mu ne dinañ ñaanal bu baax kon loolu ñu ngi ciy sant borom bi ndax dañoo bëgg rek lu ñuy def rek ñu tënk ko ci ndigal mbokk ya nekk ca jàmm gën njagsaaw ñoom ñëpp am yéene teew fi ak sama góor bu baax ga euh, di bàyyi Oustaz Sarr xam naa am na yéene lool pour teew fi waaye yàlla dogal na mbir mi demee nii sëñ bi tamit sëñ Abdou Latif amoon na yéene lool pour teew mi daal da koo jàppoon démb wala tey mu am ñaari xel si mbir mi ba far nag yàlla dogal mu nekk tey mbir mi bett ko lool loolu la waral même sëñ Fallou Diouf it amoon nañu yéen léegi loolu teew fi waaye nag loo gis comme dañ koo yeesalaat feddali laxasaay nañ ko doon àndee ñu nag gone yi ñu ma doon jàngal ñu doon sant Serigne Saliou ndax benn bis dafa am kenn si ñoom na ah ñun de suñu cant gi mu ngi def dana wax cant Mouhamed ga ma ne ko ah cant gi de faa mu tudd cant Mouhamed ga ndax Mouhamed moo jaar si Serigne Saliou gisante moom jëflante moom jël Aliou teg ko seen lupp yi di leen ko jàngal ngir jëmm yàlla te xaaru si seen i fay seen waajur fay ko ci dara xaar ci tus wutu ci dara ngir yàlla rek a tax kon nag jëf moom bu bu nangoo rek dañ ciy tudd la ko ka waaye nag du taxul mu doon ci dara nag ñoo ngi leen di sant ñoom it ñu nekk ñu jàmbaare ñu baax ñu pas-pas di Baye Serigne Badou Sarr waaw Moussa Kalamullah waaw ñu ngi di ziare ñoom ñëpp yëpp leen sant bu baax gis nañ seen taxawaay ak seen positif ya mom seen yene dafa reuy bëgg nañ bis bi rawan li ëpp li waaye man mom dama leen wax rek mbir mi euh, li si ëpp solo dëgg man li ma ci gën a bëgg mooy alxuraan jiñ ciy wàcce ñaan ci rek man loolu moom ci ëppal solo loolu daal moom ci gën a ñor moo tax man daanaka jamono ji dama koy woyofal mu ne moo tax jamono ji ne mun na maa bett mun naa ëpp si man yi loxo ndax man dama koy woyofal rek dama jàppale ñu ko war a ñëw rek dajaloo jàngal xoraan ñooñu buñ ci noppee rek noppi nañ ci man moom jeexal naa bis ba bu loolu noppee ndax man loolu rek ma ci ñor te yaakaar jama ci am mooy aroxaan ci jëmm yàlla jëmu doon xamante ni njub googu muy ñuy euh, teete li ñu fa jëmale mu nekk leer gu yàlla goo xam ne mooy leeral jamono ba keroog àdduna di tukki loola waral nag saa su ma taxawee rek dama koy sàkku si euh, samay bis ci samay yëngu-yëngu yépp loolu tamit ñoo ngi ci sant bu baax euh, di sant tamit jëwriñu soxna si fi ne mooy Muhammad ñoo ngi koy sant bu baax moom it ndaxte wax dëgg yàlla euh, teew na fi yëkkati na jëfam it joxuñu te nag mu nekk ku baax ku yëngu lool ci soxla yi nit ñi ci dëkk bi te dara soxla ko si lu dul ngir yàlla rek tax koo def ñoo ngi koy sant di ko ñaanal moom it di jottali tamit sunu cant ca kilifaam bu baax ba di ko jottali mu yeggale ñu ko waaw mbir nag àdduna nag dafa doy waar ndax mbir boo ko defee rek mën nañu jàpp ne daa ñun moom Serigne Saliou la ñu jàppee seex bi ba ba ñu koy ñaanal borom bu baax bu baax a baax moo taxit lépp lu bokk ci njabootam ñu jàpp ko ngir jëmu Serigne Saliou ndax man moom yàgg naa féetewoo ak moom coow li muy bari bari yépp man dama gëm suñu sang ba dal xamna na ak jeexal ak xam bu xolé nit rek euh, fimi tambalé ba fimi mujjé dara ump ko ci kon kum xol joxagn ko ne ko mbir mi yaw la rek man du am sikki sak ci lolu day melni suma ci amé ben xelum ñaar rek day melni dama sikki sak matuk sama sama kilifa kon dama sikki sak ne kon sama kilifa gi dé dafa jum wal dafa mutul man bokuma ci ñooñu sikki sàkkaw mo lolu waaw moo nak lu lu bokk ci njabotam rek man motal naa ko nangu naa mbir ya nangu naa dogal ya te xam na yàlla rek muy muy wërsëgale mooy joxe aduna nag kenn mënu fee may sa bopp lu mel ni du doy ni tarafatal ay nii kenn mënu fee xañ sa bopp lu doy ni tarafatal ay nii mbir yëpp suñu borom moo ko amee non loolu loolu la Sëriñ Tuubaa xamal mu ne mbir yi daal lor ak njëriñ yàllaa ko yor moo koy jox ku ko ku ko soob dénku ko benn mbindeef loolu nag ku ko ku ko dégg nga gëm ko waroo sonn ci gu ñu jagleel sa mbokk mbindeef da nga ko ko war a yéene kepp nag nangul ko ko loolu nag mooy sa yokkute moo lay yokk yow mi ko nangu ndax boo ko bañee du wàññi dara yàlla te tuutee dina ko yokk ndax yàlla moom buy xéwale nit ki xàmmewu kii la mbaa fii la bokk mbaa fële la bokk ndax ñun ñëpp ku fi nekkul jinne moom bànni ci aadama nga bokk xanaa nga nekk jinne boo nekk jinne nanga nga bokk nga génne sa bopp ci ci doomu aadama yi waaye fekk yaa ngi doon munoo fexe ba génn sa bopp ci biir doomu aadama yi suñu xayu bànneex musal tam ci xayu àdduna tënkuñu ci njub ak ragal yàlla tënkuñu ci njub ak ragal yàlla tënkuñu ak alxuraan defal ñu yàlla ak yonenteem ñu soppal ñu suñu bopp ñu ñu sopp yàlla ak yonenteem loolu daal la ñuy ñaan te it di sant bu baax ci xéewal yi ñu yàlla jagleel gisee gi ñu gisee yonente bi sallallahu alayhi mu dikkal na waaye tamit ci xamal gëm ñu xamal ne kenn lañ ci ay njabootam loolu nag dañ ciy sant yàlla bu baax ndax yonent bi sallallahu kenn ku ne xam ne na seytaane du ko mburu du ko soppeeku du ko du dikkee jëmmam bu dee dikkee rek daf laa dikkal kon nag loolu ñu ngi ci sant borom bi bu baax te it wér nañu ñun feneluñu ko li ñu wax it dëgg la te bu ëllëgee it suñu borom lañu lépp lu waaye wax rek dana ko waxaat bu ëllëgee ku gëm nag yomal ku gëm yomal xiyam gëm gis benn ci la waxe dang ka waxat rek kon nak danaka jarul wax lu amul euh, solo wala wax lo xamne du dëgg ndax bo legge da nga wéet ak sa borom kep wax wax ko ko wax nak moy ak cant te xamne njeriñ kep la ndax liggey bi kat dor nañ ko te yag na lol do ay ay ati at ndax Cheikh Tidiane mom ñi wax ñun ñoko xeexal ci kàttanu yalla ak ciobaram ak mom pas passam bu deug bi mu am ànd ak njabootam jóge risaatol dox ba egg si fii bu ko neexoon duggoo sa waaye dafa ne man kat li ma gis ne nii la ko jaral te pas-pas bii la si tollal kon nag loolu ñu ngi ci sant yàlla te xam ne kat euh, liggéey bii rek lañ koy ànde moom lañu suñu borom tënk te lépp rek ka waral mbir mi mooy fañu yaroo ndax nit kat buñ ko gisee duñ ko laaj ku ko jur danaan ku ko yar loolu la mag ña daan laaj xaw ma nag jamono ji lu ñuy laaj waaye daal la amoon sol la njëkk mag ña daal lu ñu daañu laaj bu ñu gisee diw danaan ku ko yar waaw kon nag ñu ngi ci sant borom bi baax di am mbégte bu baax a baax ndaxte xam nañ ne Cheikh Saliou de ay jamono daa am ñu daan rotol ay kàddu naan day jëriñoo doomu jàmbur yi rek comme tool yi ak yëngu-yëngu yi waaye ñooñu tey jii buñ ñu gisee xam ne ñooñu liñ doon wax wax joo xam ne tegul fenn la ñu xam ne ñun kat suñu sang ba ñu ñoo ko daan jëriñoo dañu daan jëriñ waaye moom de daawuñu jëruñoo ñun ñoo ko ñun ñoo nekkoon ñoo xam ne ñoo doon jëriñoo ci moom te loolu lii da koy firndeel ndax jamono ji lu mu gën a dox ay ndawam ay ay nitam seeni mbir di gën a feeñ na ay magi Serigne Touba doon feeñ ndax xam moo wax la mu wax wax ju rëy ja joxle ma ndaw ñi ma def la sëriñ Touba daan def ca mag ña ma def ko ci ñoom loolu nag moom luy feeñ la luy wér la luy taxaw la kon nag Muhammad moom lu mu am ak lu mu ñàkk dara jomb ko loolu lu mu gëm la du xaar kenn di ko ko waxal mo koy waxal bopam ndax la ko waral may ka ko yar ak kam mu jataayal kon ndak mom mo ngi sant mom bu baax euh, di woote it ñu santale ko boromam ñu woo ñëpp ñu santale lako ndax mo waral bis bi euh, ñu ngi sant baaxa baax ñaan ñep yalla ñu yalla defal tawfiq ak xéewal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي بما يسرح الأفقان حق وجاء بجاه أفتلي من لله قد وجاء حمد لرب الكريم لا شريك له والصدر يوم نورا ساتحا ملا محمد صلوات الله في عبد حلجني اسمه كل بعيك لا أدعو إله الذي عمت مواهبه لجملة غلق ما يحتار من برا ناتيته كالأهوى من قرما تكرم محادي لي من لحد رحمن عبد التميل للقلق رحمة من يحني حني شهر من قرآن حوق حكومة المصطفى حن كل مفسدة وترحمي غلق يا من تادح بدا يا مالك الملك يا من جل الحوادي حوتي ارحمتني عن ورى يا حادي محو محوتما قد محاح القلب من تضر بداعي افضل من لله قد رجا سبحان ربك رب الحسد حما يصفون والسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين دنيا على من يبقى يغيب يوم